waaw jërëjëf Mamadou Awa xam nga man loolu beneen jàngat laa ci jàngat bu raw aspect politique bi ñu ciy xool mu di lan l'indépendance de la justice tant décriée dans ce pays. Mhm. parce que dañoo yàgg wax ne suñu justice dafa sëngëm suñu justice c'est une justice qui est à la solde vraiment de. du président de l'exécutif. Mhm. mais tey suñu justice wane na ne actuellement que nekkul justice bu sëngëm justice la ba nga xam ne dañoo taxaw et en pleine conscience décision bu ñu war jël danañ ko jël xëy na nag tey jii nii euh, lañ jël benn décision bu favorable. Euh, au parti Pastef mais tey yàgg nañoo jël ay décisions yoo xam ne dañoo favorable favorable au camp présidentiel mais ay ŋàññ yu metti ak ak ay attaques yu la doon jural. Mm-hmm. donc loolu laay njëkk a dénoncé. foofu en fait maanaam Ousmane Sonko n'avait pas à encore perdre à perdre encore li nga xam ne ma la wax c'est des du man maa koy man du keneen moo koy interpréter ñun en tant que républicain. nous faisons entièrement confiance à la justice. Mhm. tey boo xoolee li fi xewoon yëpp autant de moo ak yooyu yëpp pour aboutir à cela man damay jàpp ne tey loolu la posture républicaine bi ñu bëgg ci dëkk bi pour jàmm mun fee am pour ñu dem vers des élections paisibles man foofu la man jàngat boobu laay njëkk jàngat bon par rapport à ce qui est arrivé bon moi je que c'est tout à fait normal c'est un chef de parti ba nga xam ne tey jii nii jàpp na dañ jàpp na ne koo xañ ay àqam ak bon li ci des nañ bàyyi yoon topp liggéey bon oui mais sauf que aujourd'hui ce qui s'est passé aussi tey na xel dans la mesure où comme ni ko waxee euh, Mayaba Mbaye ñoom dañoo woon toog di xaar le mandataire de Ousmane Sonko. waaw que le recours dugal nañ ko bon on nous dit que le recours n'est suspensif mais en matière d'administration il y a aussi des procédures tey jii nii bu fekkee tey jox nañ leen ay fiches de parrainage ñu dem di parrainer. ba commencé am espoir recours bi dugg ari la waat li ñu njëkkoon jugement bi ñu njëkkoon jox en première décision qu'est-ce qui va se passer. waaw mais dañu xam ne dañ leen di wax ne leen arrêté leen delloo xaar dañ leen di wax ne leen encore arrêté leen joxaat leen delloowaat leen ñu parrainage yi donc tout ce tohu-bohu là mieux mieux pour ñu éviter ko mieux vaut ñu xaar une décision de justice rendue en dernier en, en dernier lieu. mais ban décision ngay wax exactement concernant quoi. mooy parce que bu pour le cas de Ziguinchor. Euh, l'agence judiciaire de l'État moom dafa mujj génn ci li nga xam ne moom moom la nekkoon maanaam pour loolu noonu wartul am lenn loo xam ne war nañ ko ci mën a kii continuer. mais on a on a fait un recours au niveau de la Cour suprême bàyyeeguñu de décision pour mu continuer di dem en foofu laa la wax. recours bi kan moo ko def. recours bi moo ko les avocats de de de de. de l' de l' état ñoom génn nañ ci je pense bien. oui oui génn nañ ci génn nañ ci. génn nañ ci peut-être xëy na tey nii euh, Ousmane Sonko euh, fiñ fi ñuy yaakaar ne gars yi dañ ko bëgg a tegal dégg sërëx mooy ci euh, condamnation Mame Mbaye Niang bi parce que nee nañu appel bi gars yi fixé nañu date bi te loolu xëy na bu bu définitifé mën na mën na ko indil problème mais bi moom je pense que li waroon gars yi rek DGE tey jii mooy jox ko ay fiche de parrainage ah, information boobu aw ma ko man parce que li mujj woon xam moom mooy déposé nañ donc mhm. bu bu fekkee décision de justice génn na mais nañ ko appliquer man loolu la loolu la suñu DG nañ ko jox ay parce que tamit il faut être républicain bu fekkee yoon moom moo décidé loolu et ñoom defuñu recours parce que man dama déggoon la presque ni dañuy def recours daf ko waxoon mais daf mhm. ah, pense que kon la euh, on n'a appliquer la justice dans tout son état